anthropologue nekkoon tamit homme politique sénégalais bi nga xamante nii ndongo yi maanaam étudiants yi nekk sax université Cheikh Anta Diop bu Dakar yu ci bëri xamuñu mooy kan rawatina nag ndaw ñi nga xamante nii dégg rek la ñu am ci moom Cheikh Anta Diop nag ci dundam yëpp mu wane Afrique rawatina Afrique noire ñi nga xamante ni der bu ñuul la ñu am mu fësal seen aada fësal seen civilisation yëkkati der bu ñuul ca kaw àdduna gépp teg ci seen bët parce que tubaab yi dañu mës a naxee ni ñun Afrique rawatina nit ñu ñuul ñi amuñu histoire maanaam amuñu taarix maanaam ñoom ay mala la ñu jàppee ndeysaan Cheikh Anta Diop ci xam-xamam bu sell bi def ay gëstu bind def travail scientifique wane ni Afrique dafa am histoire avant même colonisation Afrique dafa am histoire ay junni junni at ca gannaaw dem sax ba ne Afrique ci boppam moo influencé li nga xamante ne nii mooy àdduna donc bu du woon Cheikh Anta Diop mën nañ ni làmbaay dina ñaaw parce que dafa siggil nit ku ñuul jox ko gëddam yëkkati ko nag ci àdduna wërngal këpp ñepp xam ni afrique rawatina nit ku ñuul du doomu adama bu ñu war a tuutal ci vidéo bi nag di ngeen xam di ngeen découvrir parcours nit ki mooy kan yan liggéey la def pour wane ni afrique acteur la principal ci li nga xamante ni mooy histoire aduna di ngeen xam tamit yéene yi Cheikh Anta Diop amoon ci Sénégal rawatina Afrique dinañ wax itam ci carrière politique am moom ak Senghor naka la ka Senghor xeexee fii Sénégal pour néewal ko doole ba yéene gi nga xamante ni amoon mu jëmmal ko fii ci Sénégal lépp dina leer te dina leen ko expliquer ci vidéo bi ngeen xam Cheikh Anta Diop nit ku màgg kooku nit ku tedd kooku noonu mooy kan. Cheikh Anta Diop nag mi ngi juddu le 29 décembre 1923 fële nga xam ne nii mooy ceytu ceytu mi ngi nekk ci département bu Bambey ci région bu Diourbel fii ci Sénégal Cheikh Anta Diop ko ci famille wolof. bi mu amee nag ñaar fukki at ak ñett ci la dem Paris maanaam France jàng fa li nga xamante ni mooy physique chimie mais yemu ci daf ci dolli jàng li nga xamante ni mooy histoire ak li di science sociale mais ci jàngam Cheikh Anta dafa adopté benn point de vue boo xamante ni dafay méngoog li nga xamante ni mooy Afrique fexe ba yëkkati jër bu ñuul weddi tuuma ñi teg ci kaw africains yi comme quoi que ni ay askan lañ yoo xamante ni amuñu démb. en 1951 Cheikh Anta Diop ci direction Marcel Griol bind ben thèse doctorat ci université de Paris ci thèse doctorat bobu noonu mi expliquer ni Égypte a dekk le bo xamanteni ni ay africains noirs ñoko ko ñoko sos làkk yi nga xamanteni mom moom égyptiens yi di làkk ak culture égyptienne ci bopam bi nga xamanteni ni Occident yi dañ ci inspiré wu Afrique noire lo sokkee ko balaa dara di am mais thèse doctorat bobu noonu li ci graw moy français yi ci bopam. dañu bañ ni Cheikh Anta du ko présente maanaam présenté wul thèse boobu noonu bi mu ko bindee ba pare. thèse bi livre lañ ko mujj def tuddee ko nation nègre et culture bi nga xamante ni ñu ngi ko publier en 1954. 1960 la ñu xaar pour jox ko li nga xamante ni mooy doctorat maanaam Cheikh Anta teewul Cheikh Anta Diop mi ngi woy di amal spécialisation ci li nga xamante ni mooy physique nucléaire ci laboratoire chimie nucléaire bu nekk collège de France. li ci jublu woon mooy créer ay méthode ay approche yoo xamante ni dina ko mën a may mu gën a yaatal xam-xamam jëm ci wane ni Afrique dafa am histoire bu am solo ci liggéeyam bi tamit mu sukkandiku ci ay citation yoo xamante ni ay nit yu ci mel ni Hérodote ak Strabon ñoo ko def ay citation yuy firndeel que ni Égypte ancien Égypte bu yàgg ba seen xarkanam yi sax dafa nduroog africain noir yi moo xam ci seen wàllu couleur maanaam ay nit yu ñuul lañu woon laataa ñuy doon ay nit yu xees bo xolé seen walu karaw ni mu mel seen walu bakani ak seen ay la yo xamanteni ay noir dañ yo au fil des années au fil des millénaires ñoo transformé wu don ay nit yu mais si remonter dans l'histoire ay nit yu ñuul lañu comme ñun Cheikh Diop dem ba ni ci lu nañ que culture égyptienne ci culture nègre la Manam ay nit yu de mais yamu ci rek ci aspect physique bi manam ci walu kanam bakkan ak aspect physique yi ma leen limal mais même ci côté langue boo xoolee Égypte dañu am ay langue yoo xamante ni dafa inspiré wu ci li nga xamante ni mooy ñun suñu làkk yi moo xam muy séeréer moo xam muy wolof boo ko jëlee wolof tey dañ koy fekk ci langue égyptienne bu antique bi en 1960 bi mu amee li nga xamante nii mooy doctorat bi nga xamante nii francais yi mujjanteel bi nangul lañ ko ko mu ñibbi si Sénégal jàngale en tant que maître de conférence ci université bu Dakar bi nga xam ne nii tey moom lañ ko dippee mais teewul en la am titre professeur loolu lépp dina ci ñëw après parce que ay problème la yoo xamante ne nii moo waral lu ñu mel ñu bàyyi ba 1981 jox ko titre professeur ak maqaama bi mu am dinañ ci ñëw léegi. en 1966 la créé li nga xamante ci biir université bu Dakar premier laboratoire africain boo xamante nii day spécialisé ci datation des fossiles archéologiques mu ànd ceeg commissariat français bu énergie atomique muy CEA ci biir laboratoire boobu noonu Cheikh Anta Diop def ay tests mélanine utiliser maanaam ay échantillon ou deru doomu aadama yi nga xamante ni nekk nañ Égypte mu méngale kooku ñun suñu yos yi africain noir yi te bi ko résultat yi daf ko jox ni effectivement nyom égyptiens yi seeni origine mooy Afrique noire nga dem dans les années 70 Cheikh Anta Diop dafa participer ci comité scientifique international bi nga xamante ni dañ ci lëkkaloo nag ki nga UNESCO pour élaborer histoire générale bu Afrique mu nek un projet éditorial bo xamanteni ni mi ngi tuddu ci 8 volumes ngir bind ouvrage boobu noonu Cheikh Anta Diop participé ci colloque international bu Caire à 1974 mu nekk moment boo xamante ni moo ko may mu confronté maanaam méngale méthode yi nga xamante ni doon na ko def ay recherche France yëgalee ko fii ci Sénégal wane ay résultats de recherche yoo xamante ni nii àdduna wërgal këpp teg ci seen bët ci colloque international boobu noonu Cheikh Anta Diop bind benn chapitre tuddee ko l'origine des anciens égyptiens ci colloque boobu noonu spécialistes yi fa teewoon yu ci ëpp dañu approuvé résultats yi nga xamante ni Cheikh Anta Diop présenté woon na ko fa moom ak Théophile Obenga di firndeel que ni comme li may wax sànq Égypte ancienne Afrique noire lañu ñu ko fa lañ inspiré wu jamono moo dox ba soppe ko am donc ci tënk rek Cheikh Anta moo nekk noonu pour wan leen liggéey bi nga xamante ni def na ko pour siggil der wu ñuul ci àdduna wërngal këpp d'ailleurs en 1966 bi ñu organisé festival mondial des arts nègres fii ci Dakar Cheikh Anta dañ ko def auteur africain bi nga xamante ni mu ëpp màqaama maanaam mu ëpp dayo gi nga xamante ni def na ko ci li nga xamante ni nii mooy vingtième siècle bi solo le 8 février 2008 ministre de la culture bu Sénégal muy Birame Diouf dafa inaugurer une mausolée ngir delo njukal ki nga xamante ni moy Cheikh Diop ci village natal muy Ceytu mausolée bobu noonu bokk na ci site yi nga ni yu a la fi nga ni Sénégal bo jëlé tamit université bu Dakar université Cheikh Anta Diop muy depuis mars 1987 Cheikh Anta Diop lañ ko Cheikh Anta Diop aussi ci ce bu am solo pour sigil der bu def grand prix de la mémoire édition 2015 par des associations littéraires. ba léegi ci ci bi nga Cheikh Diop Cheikh Anta Diop day expliquer que ni pour que ñi xamul liggéey bu am solo bi nga xamante ni defoon na ko Cheikh Anta Diop day wane ni doomu aadama ci boppam ñu koy tibbee Homo sapiens mi ngi njëkk a feeñee ci li nga xamante ni mooy latitude tropicale yu Afrique yi boo xoolee ci dëkkuwaay yu ñuy woowee Grand Lac. Cheikh Anta Diop firndeel que ni doomu aadama yi njëkk yi ñu woowe homo sapiens yi ay nit ñu ñuul lañ woon ci kaw suuf mu rax ci dolli que ni mu rax ci dolli ne ay junni at ay nit yu ñuul kese ñoo nekkoon ci kaw suuf amul woon nit ku weex Cheikh Anta Diop dafa firndeel que ni nit ku ñuul moo njëkk ci kaw suuf laata nit ku weex di am tey bu ñu wëree àdduna bu mu daj osman yi gën a yàgg ci àdduna bi leen seetee Afrique la ñu sokkee ko parce ossements yi nga xamanteni ni gis nañ ko fii ni Afrique ñi ngi leen découvrir lu toll ci téeméer ak juróom fukki junni at alors que ni boo demee ci li nga xamanteni ni mooy Proche Orient par exemple ossements yi fa gën a yàgg booy xool téeméeri junni at kese la ñu maanaam doomu aadama gi njëkk ci kaw suuf Afrique la sookee ko te loolu boo xoolee communauté scientifique yi yépp dañ ci ànd d'accord si looloo tax Cheikh Anta Diop ne Afrique mooy le berceau de l'humanité bépp phénomène civilisationnel bu am ci àdduna fii la sookee ko fii ci Afrique léegi nag Cheikh Anta Diop di dem di expliquer ni homo sapiens yi maanaam doomi aadama yi njëkk ci kaw suuf yi li tax nag ñu tasaaroo ci àdduna bi maanaam boo xoolee phénomène climatique yi ak li nga xamante ne nii mooy disponibilité naturelle yi maanaam ci wàllum dund moo waral ñuy dox tasaaroo ci àdduna ba diversité am ci àdduna ñuy gis ay nit yu weex nit yu jaune ay métis diversité culturelle boobu mais lépp Afrique la sokkee ko Cheikh Anta Diop moo sigil nit ku ñuul. te Cheikh Anta Diop yamul rek ci def comparaison entre Égypte antique ak li nga xamanteni moy Afrique noire def la comparaison ci walu physique mais dafa dem ba ci walu langue yi maanaam làkk bi nga xamanteni mom lañu la parce que suñu làkk yi ñuy làkk fii ñun muy wolof muy séeréer muy yeneen làkk boo xoolee même aspect linguistique yi la ñuy fekk ci li nga xamante ni égypte ancien parce que làkk yi ñuy làkk fii moo dem ba yegg ñoom li nga xamante ni mooy civilisation dem nañ ba gis li nga xamante ni mooy ay mots ay kalaama yoo xamante ni égypte ancien ni ñu prononcer mots yooyu noonu moom la ñuy prononcé même chose ci li nga xamante ni mooy langue bu ci mel ni wolof boo jëlee tamit langue séeréer da ngay gis ay même terme moom ngay retrouver ci li nga xamanteni moy Égypte ancien du dara lu ay culture yo xamanteni dañu dem ba law ci dëkk yooyu noonu looloo waral ressemblance yi te loolu lépp ay travaux scientifiques dañ ko approuvé wane ni lépp fii la dooree ñun nit ku ñuul lépp ci ñun la sooke ko nga jël tamit ci wàllu culture boo gisee wàllu xarafal égyptien yi dañ daan def li nga xamante ni mooy xarafal parce que lan moo tax ñuy wax Égypte parce que Égypte dafa inspiré li nga xamante ni mooy occidentaux yi tey boo jëlee dëkk bu mel ni Grèce seen philosophe gën a mag dañu ñëw Égypte jàng fa maanaam Afrique noire moo inspiré Égypte Égypte boobu ci boppam seen civilisation inspiré li nga xamante ni mooy les occidentaux moo tax Cheikh Anta jël exemple foofu noonu. xarafal bi nga xamante ni moom la ñuy gis ci dëkku Afrique noire yi Égypte ancienne dañ ko daan def même culture la lépp Cheikh Anta daf ko wane. ñu ñëw nag ci li nga xamante ni mooy carrière politique kii di Cheikh Anta Diop. Cheikh Diop nak mi engagé wu ci politique en 1947 jamono yooyu Sénégal amul won indépendance en tant qu'Africain, il mu taxaw moom ak ak ay ndaw Sénégal dafa wara indépendance pour que ñu tabax état fédéral fi ci Afrique. Cheikh Anta Diop poussé na ay jeunes africains yu faire ngir ñu politique pour engagé wu pour mëna am Afrique bi ñu bëgg entre 1950 et 1953 mon nekkoon secrétaire général étudiant du rassemblement démocratique africain RDA nous dénoncé des xeex ngir Afrique am li nga indépendance D'ailleurs, le journal bii di la voix de l'Afrique noire bindoon na ci ab article Cheikh Anta Diop di xamle que ni colonisation ak lépp luñ ko mënti defee ak bépp forme baaxul ci li nga xamante ni mooy intérêt africain yi mais xeex bi wu ko rek ci wàllu politique daf ko accès aussi ci wàllu culturel boo xoolee participer na ci ay congrès yu bari yoo xamante ni ay artistes ak ay écrivains yoo xamante ni ay nit yu ñuul lañ ñoo ko doon def ba 1960 Cheikh Anta Diop publier li nga xamante ni moom la considéré comme plateforme politique dippee ko les fondements économiques et culturels d'un futur état fédéral en Afrique noire Mon moom yéene moo nekkoon Afrique rocceeku ci li nga xamante ni dépendance ñu état fédéral benn am économie bu forte am naataange ku bo xolé débat politique fi ci Sénégal Cheikh Anta Diop bokk na ci li ñiko démocratiser parce que bokkoon na ci li doon encourager opposition bi pour que ñu jàmmaarloog nguuru Léopold Posada Senghor bi nga xamante danaka pion France la woon France moko fi yabaloon rek teg ko fi mais liggéeyul woon li nga xamante moy Sénégal le 9 janvier 1960 Cheikh Anta gannaaw bi mu soutenir li nga xamante ni mooy thèse doctorat wala nga xamante ni mooy Sorbonne mu ñibbi si Sénégal jàmmaarloo nag Léopold Sédar Senghor bi nga xamante ni déggoowuñ woon ci li nga xamante ni mooy ay gis-gis ak idéologie ñoom ñaar daanaka déggoowuñu woon ci dara parce que Senghor li mu doon wax mooy négritude alors que Cheikh Anta Diop moom li mu gisoon mooy renaissance africaine boo xamante ni maanaam judduwaat Afrique bu bees boo xamante ni dañuy sukkandiku ci li nga xamante ni moom la fi suñu maam yi bàyyi woon ci ngëneel ci valeur ñu sukkandiku ci loolu noonu promouvoir li nga xamante ni mooy suñu làkk yi maanaam duñu jël français importé ko mais suñu làkk yi la ñuy sukkandiku comme ni ko chinois yi defee comme ni ko yeneen dëkk yi defee. d'ailleurs Cheikh Diop da doon traité Senghor ak ñi mu daan àndal yeneen écrivain africain yi nga xamante ni caaxaan kese leen taxoon jóg da leen doon wax naan bindkat yoo xamante ni ci làkku jàmbur la ñuy sukkandiku ngir bind parce que Cheikh Diop leen la gëmoon Cheikh Diop dafa ne benn dëkk mënul développé wu. ci làkk jàmbur Cheikh Anta Diop loolu la gëmoon te histoire jox na ko raison parce que tey bu weesoo les États-Unis bi nga xamante ni nii ñoom seen làkk la ñuy wax France bi nga xamante ni nii ñoom gaa développé nañ ci ndoddu dëkku africain yi mais seen làkk la ñuy wax nga dem yeneen dëkk yi naka noonu Allemagne seen làkk la ñuy wax mais nga dem Asie Il dëkk yi fa développé yépp di concurrence ante ñi nga xam ne ñooy puissance yu mag yi ñoom États-Unis ñoom Russie ñoom Allemagne ñoom France muy ay Chine ak yooyu seen làkk la ñuy développé lépp lu ñu jàng seen làkk lañ ko jàggee Cheikh nous Diop loolu la bëggoon parce que Cheikh Diop dafa ne réew mënul développé mënul dem kanam tànk mi nga jàngee làkk jàmbur mu Nous nag Senghor boo xoolee Senghor bi mu ne l'émotion est nègre la raison Hélène maanaam lépp lu jëm ci li nga xamante ni mooy côté sentimental nit ku ñuul la mais lépp lu jëm ci xarala xel ak xalaat tubaab a ko moom maanaam saaga bépp nit ku ñuul sengoor bi mu waxee wax ju ñaaw jooju noonu Cheikh Anta Diop daf ko tontu. li ko Cheikh Anta wax mooy sengoor day profité ci li nga xamante ni mooy négritude pour rey li nga xamante ni mooy aada Afrique. manam lim doon wax Senghor gëmu ko ab mbir la bu mu gàlloo woon rek pour wane ni dafa bëgg Afrique alors que bëggul Afrique lam ci jublu mooy ray culture Afrique ray aada Afrique saxatu Anta Diop li mu jàppoon ni mooy tubaab bi dañu amoon mission pour ray li nga xamante ni mooy suñu caada ak suñu cosaan ndax ñu manipuler suñu xel te lépp nag duñ ko def ñoom maanaam du ñu ñëwati ñoom def ko fi déedéet ay nit yu weex dañuy jël benn nit ku ñuul koo xam day mel ni ñun mais tubaab la ci wàllu gis-gis ak ci wàllu xalaat muy Léopold Sédar Senghor ñu teg ko fi mu ñuy noot Cheikh Anta Diop loolu la jàppoon loolu la daan tontoo Léopold Sédar Senghor te loolu mooy li am mooy li dëgg. léegi nag Senghor ne kii di cheikhante Diop ak gangoram opposition crypto personnelle la te dina leen wan na lak naka la lan la Senghor def Senghor dafa néewal doole cheikhante Diop biir université bu Dakar jox ko simple poste chercheur ci laboratoire institut fondamental Afrique noire muy IFAN ci wàllu politique Senghor recruter ay militants au bloc des masses sénégalaises muy BMS muy premier parti Cheikh Anta Diop fexe ba woo leen ci wétam ger leen tax Cheikh Anta Diop créé wat benen parti tuddee ko le Front National Sénégalais muy FNS adi di dem Cheikh Anta Diop créé wat Rassemblement National Démocratique muy RND bimu créé RND ci bopam Senghor jox ko li nga xamanteni ni agrément manam kayit bi nga xamante ni moo koy may mu exercer li nga xamante ni mooy ay activité politique am mais Senghor yamul rek ci loolu noonu Cheikh Anta Diop dafa créé woon journal pour mën a wax ak li nga xamante ni mooy askan bi mu jël journal bi tuddee ko Siggi Siggi S I D G I bi mu créé journal bi Senghor ne journal bi kenn du ko publier lu tax kenn du ko publier parce Sigi bi ni ko Cheikh Anta Diop bindee du nonou nee na bi benn G kese la war am alors que Senghor sax comprendre won dara parce que mo moowu olof la té bo dindé ben G bi dotul nek di Sigi mais sigi lay nekk mais prétexte la won ap lay la bo xamante dafa bañoon Cheikh Anta Diop publier guéné li nga xamante ni journal bi mu bëggoon créer Senghor lépp def nako comme d'ailleurs nim ko défé ak Mamadou Dia xeex ko tëj lu ko kaso néewal ko doole pour lan gëna a intérêt France nim ko defee ak Mamadou Dia noonu la ko defee ak kii di Cheikh Anta Diop fexe ba idéologie yi nga xamante ni amoon na ko yéene yi mu amoon pour Sénégal mu fexe ba néewal ko doole ba loolu lépp bañ a antu ndax lan intérêt France. tey bu ñuy dund situation yu métti fii ci Sénégal bu yenn Sénégalais yi di dund lu métti fii ci seen réew Senghor am na lu bëri lu mu ciy joué ndax lan sàmm intérêt France dooleel fi France. ba tey gis ngeen résultat yi ni mu demee parce que Senghor tubaab yee ko fi tegoon tubaab yi ñoo ko fi jël teg ko fi après indépendance donc kii mooy Cheikh Anta ñu profité woon ci li nga xamante ni mooy commémoration génnu àddunaam ñu def vidéo ci moom pour ñi nga xamante ni jotuñ ko xam liggéey yi nga xamante ni def na ko ci Afrique pour si gildeel bu ñuul ñu mën a xam jëmm jooju mooy kan ak lan la liggéeyal Afrique lan la liggéeyal royaume bii di Sénégal di ñaan suñu borom yoram ko xare ko ci aljana yu gën a kawe yàlla may ñu ay Cheikh Anta yoo xamante nii bépp yéene bi nga xamante ni amoon na ko ñu matale ko suñu réew mën a jëm kanam. donc vidéo bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox tig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.